di kañ Cheikhu Tijaan Cherif kañ yu rëy su buur yàlla soobee danaa fentu way di kañ Cheikhu Tijaan Cherif kañ yu rëy Cheikhuna Tijaan gaañu na ñépp ni nii mooy sangu lawliyaay moo leen raw ca yàlla tëgal leen rëy mbir ci démb ak ci tey Cheikh Tidiane moo leen sut ci xam-xam te mën leen ci diine gën leen a set yére gën leen a xay Cheikhuna Tidiane su ngeen koy limaale ak ñeneen ci wilaaya gëlee nag tukkal ngeen li maale ki béy Cheikh Tidiane su ngeen koy xiyaas ak ñeneen ci maqaama tawub waame ngeen li maale ki lay ndax yoneen baa ko jox ab tariqa ki shartam ab tariqa ki shartam ku war charte yónneen bi kay def nga ay ku war cheikhuna ngën ji mindeef nga war ku war ngën ji mindeef su layyee du yey ku war cheikhuna ak mu jëm moo di naari diirug la muy noy day wat magay su diiree du jekku su dee ree du kekku su dee war di daanu su dee sànni mooy ku war cheikhuna su xiinee du tawlu su tawloo du ñorle su ñorle du woom le ci yaakaari mbay su diiree du jekku su dee ree kekku su dee war di daanu su dee sànni mooy gaañu na ñépp def nii barzaqul baraziqi waajaa nga faas mu medd kulli awliya rahmaani màggal leen borom tëraay ba faas borom tariqa bi ممد كل أولياء الرحمن sunu yoon ku koy soobu bul bàyyi bul ziyaareet ku dul noon tayit nan la doy sëriñ Haadi xarit kaay ma wax la samay maam ngi ci askanu leer laa juddoo bis ni tey ca mawdog nijaayam borom xeeji xaali ca cheikhu tijaani ci alaalu way xarit kaay ma la samay maama ngi ci askanu leer laa juddoo bis ni tey sëriñ haadi nee na ca maw dog ni jaayam borom xeeji xaali ca cheikhu tijaani ci alaalu way xarit kaay ba la samay maama ngi ite ñoo gën ci man yal na leen yàlla fay samay maama ngi ku leen sopp doo texee di segam seg cofeel wér ne kay xarit kaay ma wax la fabal wer di wii te sikkar bu baax daal di am ngeen ji may na ngay teewlu tey teewe gaañey wasiifa fa gucceeli leer yay joxe ngeen ji may taaliba cheikh bi liggéeyal ci métier mu fanqal la gàcce lu leen yàlla séddee ne leen loolu doy liggéeyal ci métier mu vànqal la gàcce lu leen yàlla séddee ne leen loolu doy li fekk ràppe ngay xëy ci waxtu liggéeyam di laaj saaji fallay di tallal garay faa'ilan mufaa'ilatan teg ci poote peese ko ajjanay julit jënu aw waji te nga kuyor ko Cheikh Tidiane ku yor kurusam yalla day raxas tilimam ba mu set wecc ni ñepp ni ni may ko ilina di taari ko kurus ku xas diko fop so waré da danga xalalap molu watul di la fab le nga lab labaale ko sep serigne bu mag ba nga naw doytu caag mu far di la daw far di muslu yàlla ci yow bañ ngaal ku aale ko moo taxit ku war kurusam def na ay ba foo mën a jëm ak tuyaaba joo mën am dootu tax ñu faale la gii Cheikh Tidiane ku koy bañ ak di ko jëw ak texee di ñëw na fi yow loo falang-falang dana ñëw gaawal daw te tuubi ko moo jaboote xutbu zamaan moo leen may ca leer ya mu naan fal ko suuf si ak asamaan jël ma yam tasaare ko Cheikh Tidiane Cherif du moroom martabaam beneen dayu ni xaatimiyu wax na ni moom martabaam ba séenu ko caadaliyu ak karaxiyu ak junaydu ak saqatiyu ak fudaylu kullu wali seeni xel xalaatu ko yow mi koy bañ di ko jëw ak texe di ñëw na fi yow loo falang falang dana ñëw gaawal dew te tuubi yow mi koy bañ a yënga ne ab texe di dikk na ci loo falang falang dana ñëw gaawal dew te tuubi ko